woon ba mhm. réserver lépp pour mhm. ñu dem Kigali dama lay dagg dama lay dagg rek Cheikh Mbacké nee na je vous tire mon chapeau madame respect maximum pour votre expertise kii du sax nit yéen xamu leen li ma xam di demal yow foog nga ne bi yow dootoo dem Qatar dootoo dem Cameroun kii ngay toog yow di wax. incha allah comme man yow laay bokkal <laughs> plateau rek graaw wala ñu ànd rek di ko fa def am bii ju mooy dem bii di <laughs> la yónnee acca doxalal. la wax loolu comprendre nga. Mhm. Aliou Cissé li ko dal kan euh, bi laa wax. Mhm. moom lay bañ mu dal ko coupe du monde bi. Mhm. parce que amul préparation. te coupe du monde mënoo fa dem ça reste presque sept mois. dem fa te amoo match préparatoire. mënu nekk te mu ne bii te moom tam wax na ko nee bi yoon préparation presque du am. non presque du am parce que mhm. championnat bu jeexee juin. Mhm. championnat bi day ubbi août. Mhm. léegi août xam nga décembre lan lay tombé. en Angleterre. Boxing Day. Boxing Day mooy euh, compétition euh, en euh, nu mu tuddati saison bi gën a metti Boxing Day maanaam tu joues tous les deux jours. ñoom Sadio ñoom fa lañ nekk. Mm. xam na li muy wax. Mm-hmm. c' est parce que foog mu am préparation. Mm-hmm. ka coupe du monde di nga un mois de préparation. Mm-hmm. bu dee jaar na ci yoon. dinañ leen libérer un mois avant la compétition. léegi nañ fexe organiser fi ay match yor nañ stade bi. nañu woo équipe yu mag yi léegi lañ leen di jox rek affaire yi invitation yi. ñoom bu ñu accordé nga ñëw jouer ak ñoom. moo lay permettre nga mën a. préparer coupe du monde boobu nga jëm. parce que mënoo mënoo mënoo dem coupe du monde. te laale woo équipe yu mag yi. mënul nekk le rôle d'Aliou Cissé. dans neexee wax fédération bi nañ ko mhm. wutal ay match préparatoire mhm. sinon rek du baax mhm. parce que foog ñu natt suñu doole ndax gis nga ni ba ñuy dem Brésil di jouer un un nit ñi naan yii Brésil Brésil te pourtant Brésil boobu Neymar joué woon na Firmino joué woon na Jesus joué woon na seen cadre yëpp a joué woon kon tey loolu buñ gisee ñu natt suñu doole loolu c'est parce que am na lu am solo loo xamante ne dañ ko doon wone mais loolu laa bëgg ñu tëggaat même équipe yu bu buñ bañee am na équipe yu qualifié wul mhm. ku ci mel ni Italie mhm. maa ngi koy wax tout le temps le champion d'Europe mhm. nañ ko laal xool ku ci mel ni Norvège mooy le meilleur attaquant de Dortmund fa la nekk Alan ñu xool ñoo ñooñu demuñu tey ñoo équipe yooyu yëpp am na ñoo xam ne demuñu ñu xool leen indi leen ay euh, nu mu tuddati Suède demul mooy bu bu Zlatan Ibrahimovic demul. nañ nañ ko jël. Uh-huh. yooyu yëpp ce sont des équipes yoo xamante ni foog nga xool leen. Uh-huh. boo demee côté équipe yu gars yi nga jël ay Iran. ay Iran ay Corée du Sud ak yooyu nga xool. Uh-huh. même bu dee trois matchs nga am nga dem coupe du monde boo tëddee na nga nelaw. nga xam ne équipe bi nga yor li ñu ñaan mooy ñu bañ a blessé bu ñu bu ñu blessé bu ñu bu ñu blessé on va aussi parler de du retour Sadio Mané fële ca Liverpool. Mm-hmm. parce que am na junior benn information bi ma yónnee euh, léegi mooy les lasers Jurgen que les lasers sénégalais n'étaient pas vraiment cool. Mm-hmm. moom mi nga xamante ne moom mooy euh, entraîneur Sadio Mané ak mm-hmm. sala moom est-ce que droit je sais pas peut-être bi dañuy def benn diversion tuuti rek. mais mm-hmm. tamit c'est normal parce que on parle de Sadio Mané te tamit ñun Sadio c'est notre bijou à nous lu ko métti daf ñuy métti peut-être moom tamit il est fort mentalement. ba yenn yi du ko déstabiliser peut-être yi muy dund situation yi muy dundu biir Liverpool ça le déstabilise pas mais ñun jékki-jékkee gis benn poste mhm. te ñuy wax mbirum tirage mhm. coupe du monde Salah demul Sadio dem peut-être je sais pas c'est un réconfort qu'il va apporter à Salah pour bañ a déstabiliser moom tamit benn groupem mhm. mais un club qui wane fu carrément moom fan la far di wax ne peut-être les lasers euh, n'étaient pas très vraiment cool les lasers sénégalais pour wax loolu est-ce que euh, en tant que entraîneur yu ñaari joueurs yi moom war na wane féeteem carrément moom tamit moom coach la dafa war Jürgen Klopp tëddeewul njaaxaanaay benn yoon ci mhm. diggante Sadio ak euh, Salah mhm. parce que tout le temps dañuy gis problème yooyu noonu mhm. man des fois damay énervé sax su may seetaan match euh, Liverpool looloo tax sax fan yi léegi li ma koy seetaan sa bëriwul parce que ni ñuy ni ñuy traité saajo moo ma neexul moom mën na jouer ci benn match saajo nekk ci plein match mu dem mu génnee ko te xam nga am na loo xam ne tamit sénégalais comprendre wuñ ko xam nga Sadio ba muy dem kaan dañ ko ne mën nga dem comme ni ñu waxee salaam mën ngeen dem mhm. boo leen ñëwaatee ngeen fekkaat fi seen ay place mhm. mais dañoo njëkk a woor Sadio mhm. gis nga booy boobu ñu jënd colombien boobu Diaz kooku poste Sadio lay joué typiquement fan yi boo seetaan football bi ñu naan Sadio dañ ko indi attaquant de pointe neuf bi c'est parce que ay projet club la pour mu bañ a gis après ñu jël booy bi xam nga booy bi laa dix-huit ans place Sadio la ñëw jël si carrément léegi xamuñu nan lañ koy defee. mais dañ ko bëgg a pousser à la porte. Mm-hmm. te xamuñu nag ci ban manière lañ koy def. Mm-hmm. ndax Sadio wanu leen indiscipline. Sadio wanu leen benn yoon. bés de performance ak voilà baisse de performance. Mm-hmm. kon loolu noonu dañuy xool nag pan yoon moo gën a gaaw pour ñu génnee ko. booy boobu ginnaawam lañ ko jënd. dernier jour mercato bi. moom mm. ñu ngi Cameroun. lañ jënd booy bi. man booy bi seetaan naa ci laa xam ne kii place la ñëw jël si. parce que poste Sadio typiquement lay joué. Mhm. gis nga booy bi commencé na ko dugal. Mhm. ba léegi day titulariser booy bi. Mhm. muy teg Firmino ba am parce que Sadio ba mu ñibbee kan bi ba tey mayu ko benn yoon. muy gis ci moom football bu baaxul. léegi moo tax euh, mu muy fexe tout le temps. di faral Salah. moom lazeeru Sénégal ak si yoonam. lu si yoonam. waaw ah, mais xanaa waale égyptiens yi laser ñu ñu fayu léegi lan moo si waaw bu nii la defoon kaan bi mhm. ba ñuy dem mu ne c'est une petite compétition mhm. moom noppeegu ñu mën na ci kaan gi te mu mhm. ñoo bañu may mu may ñu jàmm tuuti bu bëggee ñu am estime ci moom nañu may jàmm mu génn ci mbiru africain yi te mu dem mu lijjan moom allemand la na dem fexe ni mu jëlee équipe Allemagne bi nu mu ko coaché mais yow Lalia bu nekkoon da ngay conseillé Sadio wala c'est lan mooy nekk conseil bi na dem yoonam wala mu toog euh, ñafe comme ni mu ko nekk di defee il l'a mu li mu li muy def euh, Liverpool. pour c'est-à-dire mhm. la preuve. Mhm. li mu li match yu bëri moo koy décanté. Mhm. Sadio en général premier but lay dugal. wala but victoire. waaw boo seetloo li ma la wax. bu baax wala mu tëb mbëkk. kon bu dee nag ñoom gisuñu loolu. buñ bëggee waxaale ak Salah. moom contrat am war a jeex juin. Salah contrat am war a jeex juin. ñu gis ni Salah lañ war a waxal ndax moo leen gënal. ay waay ma rangé samay dëbës xool feneen fu ma dem. ndax Sadio manqué wul ndax foo dem ci Angleterre heure bii. Mm. ku ne mën na ko waxaale ba ci Manchester City. dëgg bu man bu ma doon moom sa dama dul génn Angleterre fa laay mm. des. Mm-hmm. di dajeeg Liverpool. Mm-hmm. loolu man bu doon man loolu laa koy conseil du ah, sax génn Angleterre. Ah, ah, d'accord day dem ci yeneen yeneen club yi ay mm-hmm. Manchester City leen boppam daal. voilà bu génn. parce que. am na ñu ñu bëri ñu naan Sadio na dem ba Bayern. non non xam nga championnat Angleterre moo gën a am niveau ci championnat yi. heure bii nii may wax ak yow. des années. championnat mais est-ce que tamit ak peut-être Sadio il commence à prendre de l'âge dem ci benn sa euh, championnat bu gën a yemamaay nga xam ne dina fa mën a noppalu tuuti duñu sax gën a arrangé ñun tamit Sénégal. mais xam nga Sadio bu demee. au lieu muy dem di usé wu fële ñëw fi tamit. usé wu waat mu neex Klopp mu bañ koo neex. Mhm. bu ko bëggee génnee sax Sadio day joué. Mhm. xam nga loolu. Mhm. parce que les nu mu tuddati points yi marqué. moom mhm. la xool pour teg joueur. Mhm. kon xam nga même bu ko bëggee génnee à la porte. gis na ni mënu koo génnee en ce moment. ba juin jot xam nga sa na. doo dem jouer ci naa di nga seeti feneen wala nga seeti leneen. loolu moo fi nekk buñ ko buñ ko prolongé bu dee sentir na toog Liverpool. mu toog rek. moom deful dara Sadio gis nga lu mu am jox ko Salah. nit ñi ñëw ba seetlu ni Salah du ko paas. loolu yëpp mu koy moñ. Sadio mm-hmm. li ma la wax keroog rek c'est mm-hmm. un homme bi nga xamante ne daf modeste ak humilité bi na ci moom foo ko nattu weesu na ko mm-hmm. moo tax kenn mënul gis ci kanamam li mu mer ak lu mu merul Sadio day mer sax di ree di ànd ak ñoom toog mm-hmm. ñoom xamuñu loolu mm-hmm. mais tubaab moo amul kóllëre boobu ci doomu aadama mm. buñ la bëggatul lañ la koy won pour nga mm-hmm. jugee fa mais mën na rester Angleterre mu jugee Liverpool le Qatar est vraiment devenu aujourd'hui le le le le centre du monde euh, bari nañ fa ay représentants lu part fédération bi am na ay xale yi nga xamante ne dem na nañu représenter Sénégal